ñoom ñaar jéggi na si yoon wàcc na jël na Tapha Tine dóor na Tapha Tine a ngi dóor ci suuf attention rabbi alamin sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sang-sang yi di sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sëriñ Basiru Mbàkke borom mbég mbégtaar bi di am contentement jano yéen chaque jour yéen internet yi nee leen mbégte bi lii la leen indil li gën a fës ci xibaaru làmb ci noonu damay nuyu mbay baakam ma fekkul daal di àndandoo jukkil leen li gën a fës mbay nuyu naa la jërëjëf ajaratu ndey Mbàkke Jóob jóoba jubba maa ngi lay ziar mbaa yaa ngi si jàmm bu baax sax noo xam naa ne sonn nga démb waaw parce que gis naa ne gis naa ne trois heures nga ñibbi quatre heures nga war a àgg avant ngay tëdd waaw cinq heures jot na nga xëy xëy siwaat incha allah noonu lay demee ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay masaw bu baax a baax ndax euh, jàmbaar nga xale nga wante jàmbaar nga ci liggéey bi ñu ngi lay jaajëfal di la wax ne macha allah yàlla na la ca teggi fi nga teg sa tànk baax na nuyu mbokki internet yëpp yi nekk ci euh, di ñu seetaan jamono bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam di ko sàkku ci yéen tamit. ci noonu nag revue bi dama ci ànd sama sponsor leen revue bi chaque jour koy may mooy Eau Kayar ndox bi ñuy aar ndox mi nga xam ne dañ koo jaarale ci ay yu mucc ayib ah jumtukaay yu mucc ab ayib bay Babacar mu nekk ndox bu léger am ay ferñeent baax ci xale baax ci mag ndox bi amul liir da koy naan amul mag ñépp a naan macha allah ku jëfandikoo rek di nga ci gis tan bu baree bare bare Eau Kayar la ah, ndox bi ñuy aar bay Babacar ay ca Eau Kayar mi ngi noonu ndox bi ñuy aar bi ndox bi nga xamante ne bii macha allah Sénégal yépp ko taamu ndax baaxaayam neexaayam ak li nga xamante ne bii moom mooy qualité bi mu àndal ba pare seerul yomb trop ndax macha allah sakkan na neex na ba pare set na sell neex a jëfandikoo oyof. oo oh Kayar daal li nga ko waxee mooy. ndox bi ñuy aar mooy ndox mi ñuy aar wante ñu ngi ànd ak huile Zador nga xam ne Aziz Baye Alla Ndiaye moom mooy jiite entreprise boobu nga xamante ne bii mooy huile Zador huile Zador nag bëri na ay produits yi nga xamante ne bii mën ngeen koo fekk ci biir marché bi am na spaghetti. mooy pat bi nga xamante ne bii macha allah neex na te boo koy togg du bokkut ak pat yooyu nga xam ne boo koy togg day day day day day dajaloo day taqaloo bii boo koy togg ni ni nga ko bëggee noonu lay ñoree. am na li nga xamante ne bii tamit mooy macaroni nga xam ne sama mbokk séeréer yi allah bëgg nañu macaroni lool euh, sama mbook séeréer boobu ba mu gisee ñuy chargé macaroni yi ca camion ba mu ne waaw oto macaroni bii moom fu mu jëm sa waaye na ko 100 mètres la jëm. mu ne ko mu ne ko ah 100 moom xanaa dem fa jafe na mu ne ko non 100 mètres jafe wala tooñ nit rek mbaa nga def lu garaaw mu ne ko yow suma la mbéjoon dinaa dem 100 mètres mu ma yii sama mbéjoon kenn waxtu ko ba léegi yóbbu na la 100 mètres mu toj nopp waa ji ñu yóbbu ko 100 ñu yóbbu ko ñu yóbbu ko forbe ca mbaxal ma mu naan waxu leen lii de 100 mètres ngeen ma waxoon ca macarona ka wax dama ki noonu xam nga ñun ñun suñ bokk séeréer yi dañoo bëgg macarona Aziz Aly Ndiaye nag andi na ci lu neex macha allah. wuti leen macaroni bi spaghetti bi am na couscous. am na vermicelle am na vermicelle. maa nga noona Jador a ko yor. kenn du Jador lundi 7 juin 2021 journal suñu la moom xëyee ci xëtam mu njëkk weekend bi nga xam ne dafa tàng jël ak face to face ya. 2STV mhm. Boy Niang kii Sa Thiès moom fa woon ak Moussa Issa Pouye ak Aliou Seye ñu ngi fa woon waaye TFM cosaan Boy Niang numéro de ak Tapha ñu ngi fa woon Mbaye Babacar wante Aliou Seye junior ak ki nga xamante ne bii mooy Tidiane Faye ña nga woon fële tamit ca TFM Jokkel ak Khadim Ndiaye numéro 2 ña nga fa ña nga fa woon tamit di journée ba nga xamante ne bii Pape Thialis Faye borom Leewtoo production moo ko taxawal mu fas yéene am le 8 août bu ci yàlla àndee Tapha ak Boy ñaa war a bëre grand combat bi euh, ñu gis ne journée bu nar a neex la te amateurs yi koy xaar di ko bàyyi xel wante 2STV yi comme ni nga ko waxee woon Tapha Tine ki ki nga xamante ne bii mooy. Euh, Sa Thiès ak Moussa Ndoye bu yaraax ña fa woon wante Issa Pouye ak ki nga xamante ne bii moom mooy. Euh, Alioune Seye Issa Pouye ak Alioune Seye mel ni ñaari Alioune Seye yëpp am combat. ñaari Alioune Seye junior bi ak Alioune bi ñoom ñëpp am combat. mi ngi noonu mu nar a nekk ay combat yu neex wante face à face démb bi fële ca TFM la ko xaw a yàq rek mooy Tapha Tine mi nga xamante ne bii euh, jotul yegg si ci biir salle bi. jotul yegg ndax li am mooy diggante ñaari supporters yi ñoo doon jàmmarloo ba tax na mbër boobu tafaatin ni gis ne manque de sécurité am na fa mu daal di delluwaat ci ay bërëbam Baye Babacar ca noonu nag. Mm-hmm. avant Boy Niang numéro 2 et Eumeu Sène Balla Gaye de résiste à Pikine mu mel ni fukki at yem toog ba léegi amagul victoire biir Pikine Baye Babacar. gannaaw ba mu daanee Tyson Tyson la mu jot daan foofu ca Pikine le 31 juillet 2011 la woon muy fukki at ba mu gëjee am ndam foofu ca Pikine mu fas yéenee duggaat Pikine nag kan la fay fekk. Boy ñaa ak Eumeu Sène mel ni boo tëbee des dal ci xal. dese nga beneen tëbin te boo Balla Gaye war a duggaat Pikine nag fekki fa Boy Niang ak euh, Eumeu Sène incha allah ñu xaar lan la wànne wànneet naka lay mujjee ak i gëtam. ca loolu na ka leen engagé di le Don King de suñu papa Gaston Meng ginnaaw bu mu tëggalee Balla Gaye numéro 2 B52 di Bombardier ma ca Mbour tëggal Eumeu Sène tëggal Gris Bordeaux ñëpp mu engagé leen waaye nag kam bàyyi ca ginnaaw ignoré ko muy Lac de Guiers numéro 2 ak Tapha Tine le géant du Baol. Euh, Gaston Mbengue borom Gaston production ak ña àndal ñoo yëgle loolu. gis nañ ne ki nga xamante ne bii mooy Gris Bordeaux am seen Balla Gaye ku ci nekk Gaston jox na la avance nga yóbbu sa biir kër mais ñi nga xamante ne bii daal ñoom ba léegi boo waa waa waa Gaston production boolee kunu leen seen plan mooy tafaatin ak yi nga xamante ne bii moom mooy Lac de Guiers numéro 2 loolu nag question bu ñu waral a laaj staff bi la incha allah du ñàkk danañ ci ami leeral. te noonu nag ginnaaw plateau yi di tàng jër arène nationale daal ne tàng jër nga laanu juf waxi noppi. kii di soq daam seen ak abo ñoo fa jël raw gàddu yam bay Babacar. ba ñu demee fële ca nga xamante ne bii moom mooy euh, arène nationale dam seen ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, dam seen bëre na ak ki nga xamante ne moom mooy Ndandi Fall. daan ko jël ba nga xamante ne bii macha allah loolu ca arène nationale la woon wante ba ñu demee fële nga xamante ne bii tamit euh, moom mooy stade Ngalandou Diouf fële ca Rufisque. ñu fekk fa Aboy ak fils de Zal ñu gis ne Aboy moom moo am ndam ci kawam wante ki nga xamante ne bii mooy tamit euh, soq daan ki nga xam ne moom mooy gàmmu géey jël ba nga xamante ne bi amul benn werante jël bu gaaw jël bu ñu kenn yaakaarul woon sax parce que gis nañ jël bi ni mu ni mu demee ñu bari jàppoon na ne ñoom ñaar danañ jàppante bëre xeex mais finalement loolu gis ñu ko ci boobale combat mën noonu làmb deme noonu foo ko xaaree day génn fay na fa ci des. Uh-huh. Gambien ak assurance ñoom ñu war a bëri le 27 juin Mbaye Babacar une troisième ndaje lañ ko tuddee lundi fee ca Mbour Géej. te Sidi Diakhaté Diakhaté Kabayeri moo taxawal boobule combat foofu ca Mbour Géej incha allah ñoom ñett ñu war a jàkkaarloo nag seen ñetteelu jàkkaarloo ku ci nekk xool sa moroom ci biiri bët wax ko li nga xamante ne bii noonu moom nga ko nara andil le 27 juin Sidi Diakhaté dëgg loolu ca Mbour mu nar a nekk combat bu neex ñu ngi ñu gëj gis Gambien. wante tamit assurance moom tamit gëj nañ koo gis luñ def rek lu dul xaar leen ba xam lan la ñuy andi vingt 27 juin. muy noonu nag beneen combat ba Leewtoo production daal taxawal Pape Thialis Faye daal di koy jiite muy Tidiane Faye bu Lamsar ak Alioune Seye numéro 2 bi ñu ko fisalee nag journal suñu laabu nee na le retour di professeur le 8 août incha allah Mbaye. ñu tuddee ko le professeur de Lansar li tax ñu tuddee ko ko. jëfinam ci làmb taxawaayam ci làmb mën a bëreem ak technicité am looloo tax ñu tuddee ko le professeur de Lansar mën a bëre macha allah nekk mbër ma nga xamante ni bii poids lourd jaaxalu ko mu war a jàkkaarloog Aliou Seye junior incha allah Aliou Seye Aliou Seye tamit war a ñëwaat andiwaat leneen la nga xamante ne bii lu bees lay doon incha allah loolu war a am ci combat diggante Tapha Tine ak Boy Niang le 8 août ci arène nationale. ca noonu nag gaar gi leen jëm keroog bi nga xam ne Soulaye sañ moo fa daal di woo teg fa mise u 2 millions 500 kii di Serigne Ndiaye numéro 2 nag moo arrêté Doudou Sané Mbaye Babacar. daan ko jël ba nga xamante ne bii amul benn wérante du Serigne Ndiaye moom mbër bi nga xam ne dafa bokk écrit face Ndakaaru moo fa daan Doudou Sané jël li nga xamante ne bii mooy mise ba wante dafa ñuy bëre coow la bari woon na ñoom ñaar tëkku wante ba. ku ci nekk woon sa morom ne dama laa yàkkamte damaa bëgg a bëre ak yow mais ba ñu jàkkaarloo ci fin bi ki nga xam ne moom mooy Serigne Ndiaye moom moo daan Doudou Sané suñu làmb ñëw dafa ñu li nga xam ne moom mooy classement mbër yi ëppale ay galaa yi ñu jël ci saison bi ba mu ubbee ak léegi ki mu ci jiital moom mooy Doudou Sané Doudou Sané jël na juróom-ñaari galaa jël na sept galaa ki nga xamante ne bii moom moo ci topp mooy Ibou Ndiaye. Obli jël na 6 gala Franc ñëw troisième place jël li nga xamante ne bii mooy 5 gala. sa Serigne Ndiaye da ñëw quatrième place jël quatre gala gi nga xam ne moom mooy euh, ñi ci topp mooy général Malika ak Ngañ Seen ñoom tamit ku ci nekk jël na ñetti gala loolu mooy classement bi nga xam ne moom la suñu làmb def ci mbër yi nga xam ne ñooy bëri bëri simple. macha allah beneen lu simple lañ jëm ak nga xam te ne mooy Mame Diarra Thiang hier ba ko tëggee nag kii di hôtel Dior moo suñu retour am daal di triomphé Mbaye Baba. ñu gën koo gis ci làmb moom hôtel Dior ñu gëj koo gis trop mais tamit dafa mel dafa retourné rek dafa dafa def retour am rek. wanewaat boppam andiwaat leneen lu bees ndax dafa ñëw jël li nga xam ne moom mooy gala foofu ca adresse Senghor te Mame Diarra Thiam tëggoon ko mu nekk mbër ma nga xamante ne bii mbëru simple la wante mën naa bëri trop. te noonu nag beneen làmb ba ñu doon waajal te mu mujjee ancuwul ki nga xam ne mooy général Malika ak Mame Góor Diouf tomb àlloo mbay Babacar. mu mel ni yàqu na mu waroon a am fukki fan ak ñett ci weeru juin. di euh, dimanche bi ñu dëgmal mais mën nañu wax ne combat boobu diggante général Malika ak Mame Gour Diouf gannaaw ba fils de fiis de Balla euh, amee amee li nga xam ne moom mooy euh, gàllankoor bu mënatul a bëre Mame Gour Diouf la Assane Ndiaye doon waxtaanal pour jox ko mu remplacer fils de Balla mais gis nañ ne combat boobu mujjeewul antu ndax Assane Ndiaye ak Mame Gour Diouf déggoowuñu ci kawi kàddu te loolu nag kaay baax ba ñu kontaanee seen xol seddu loolu journal suñu lam lu xëy ko titré nag mooy carton plein pour kaay baax ndax mbëram yépp a jël raw gàddu yombay Babacar. Ahmed Konaté mooy seen coach mën na ne Ahmed Konaté dafa def li nga xamante ne bii mooy 100 pour cent carton plein la def foofu ca stade Ngalandou Diouf mu mel ni kon Tëngéej jig na écrit kaay baax euh, ñetti combat yan fa am yépp dañoo daan Boubacar Niang promoteur bi moom moo tëggoon combat bi. bébé Thiané dafa daan ki nga xam ne moom mooy soq de wante ki nga xamante ne bii moom mooy lion de Jolof daan na fa euh, Ziza bu wante Aboy daan fa ki nga xamante ne bii moom mooy fils de Zal kon mën na noo wax écrit kaay baax tous du bois. tous du bois damay kontaan ci yow rek Mbaye Babacar loolu moo nekkoon li gën a fas ci xibaaru làmb looy tàggatoo bi jox gars yi dig daje incha allah ñaanal leen jàmm ak salaam di ko sàkku ci ñoom ñoom tamit di leen euh, wax ba jàmm jërë ngeen jëf. di leen jaajëfal bu baax ah, di sant di gërëm sama équipe technique bi mañ pro ah damay kontaan ci yow lool lool Mansour bëgg naa ci yow lool sama caméraman bi Fama sama caméraman bi Yacine sama photographe damay kontaan ci ñoom Mansour kii trop bi dama kaa bëgg waaye man man sa liggéey yow ma tamit su ma ba léegi maa ngi tudd réew mi lii la nii man bëgg naa ci yow ah Aïda Diouf di fa ñu ko bàyyi maa ngi kontaan ci yow matu bëgg naa ci yow Adja na fi jaay maa ngi koy nuyu bu baax a baax ah Kébé sama infographe bi sama xarit bi sama lonkoo bi Kébé Jaxara bëgg naa ci yow Bamba moom papa damay kontaan ci yow bu baax a baax di nuyu borom kër gi Pape Thialis Faye hmm? sama chauffeur moom moo maye damay bëgg ci moom 100 ah, pour cent assurance sécurité pure et dure damay kontaan ci ñëpp di bëgg ci yéen internet yi di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV. attention ñaar saakees xeex na ñoom ñaar saakees boo ñaar jàpp na ko mot na ko ñoom ñaar jéggi na junior wàcc na jël na tafaatin dóor na tafaatin na ngi dóor ci saakees ak boo ñaar ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex na ko